kanamu euh, délégation wallu Sénégal la daal di xamle nii dafay dem fekk ji candidat euh, Karim Meïssa Wade naaw ba mu jàngatee marché de l'emploi fii ci Sénégal yile lim moo gën a fës ci kanamam. téeméer boo jël ci Sénégal am na ñaari fukk yoo xam ne amuñu liggéey téeméer boo jël presque lu ëpp euh, juróom juróom-ñeenti fukk seeni liggéey maanaam du liggéey bu dëgër boo xoolee tam ñi nga xam ne dañuy liggéey di am payoor. weer bu boo jëlee genn wàll bi ñoom seen payoor motul fukki junni ci at. Eh, ci woy politique bi eh, gouvernement bi fi nekk lépp moom lañ ci war a joxoñ baaraamu tuuma eh, soxal wàllum toppatoo gi itam wàllum attribution bi maanaam koppar gi naka lañ koy joxe. Tamba Danfakha di àndi njàppandal ak xam-xam ak candidat bu wàllu Sénégal mébéb bi moo di taux de chômage bi daal di jóge ci fukk ak juróom-ñett ba daal di àgg ci juróom. ñaari weer képp moo daal di des ñu daal di dem ci jongate njiitalu réew mi Karim Wade ba léegi kenn tegu ko ay gët waral ñu bari di samp ay laaj. ana yeneen candidats yi kenn ki moo ngi prison keneen ki kenn gisu ko ñu xam li xew ak ki nekk ci bopp réew mi li gën mooy ñu xaar. attendre encore. tànk ak tànk ñu bëgg suqali liggéey bi nga xamante ni président de la république. bi fi ne woon Abdoulaye wadd amaloon na ko awale ko ci jàmm ci moom sunu bopp ci koppar itam eh, daal di fiy jëmmal état de droit